ni muy demee daal comme d'habitude ni mu daan demee noonu rek lay demee waaw bon parents d'élèves yi danañ ñëw bëgg a jënd ay fourniture ah mais ñu ci bari mooy ñu war a am indaali wuñ ko des fois bu ñu ñëwee ah li ñuy faral di indaale mooy seen kay yi ñu amee woon daaw wala livre yi ñu amee woon daaw dañ koy indaale waat ci marché bi suñu ñëwee suñu seete yi ñu bëgg ba pare léegi ñu ne yii ñu indaale yow ñaata nga ko mën a jëlee après ñaata laa la mën a dolli ñun nag toujours loolu dañ ciy am problème ndax ñoom livre yi ñu indi day màggat daanaka kenn du ko mën a jaayaat te ñoom dañ ñu koy bëgg a joxe comme lañ ñu ko lañ ko jënde woon ñun nag loolu du ñu faral di arrangé mais léeg-léeg ñu bëgg leen a ba far ko jël ci ñoom xëy na loolu ñu koy jëlee dinañ leen ci arrangé beneen parent d'élève ñëw boo xam ne moom amul doole livre boobu moom itam ñu baaxewaat ko ko alors pour moom xëy na bëgg na ko mais amul xaalis ñu seet loo xam ne rek luñ ko koy mën a arrangé ñu arrangé ko mu dem ñun daal loolu lañ fi nekkee ñun daal Saawar Baay defal yàlla lañu ko quoi. jaay bi ne ah, actuellement nag doxagul quoi maanaam ah, ah, ñi ñi ñi engrossement ñu ñooy jaay ak ak ñi nga xam dañuy jënd di toog di xaar pour clients yi ñëw daal affaire yooyu mais xam naa daal xam naa à peu près daal ay 4 jours 5 jours daal ay côté le 9 yooyu daal xam naa. xëy client yi commencé waaw jaaw jënd quoi daal. bon par ak problème ouverture boo ma ci laaj dinaa ci sawar parce que lu mat vingt cinq ans wala vingt wala trente ans maa ngi jaay ci kaw tali bi di jaay affaire livre mais par terre dafa nekk loo xamante ni euh, parents d'élèves yi war nañ ko comprendre ndaxte ndimbal la ci parents d'élèves yi. ndaxte livre boo xamante ni boo demoon tey à la librairie ñu la koy jaayee quinze mille boo ñëwee par man mën la ko jaayee moo ca prix wala ñu jaayee la ko ay cinq mille wala trois mille cinq cent livre boo xamante ni tey jii mën nga ko dem ci librairie doo ko am boo ñëwee parterre mën nga ko am bon prix bon loolu mooy liggéeyu parterre donc parents d'élèves yi war nañ ko xam parce que ni ndimbal njaboot la te ay livres yu baax lañ fiy jaay livre yu rafet xanaa kay li problème mooy dëkk bi dafa xawoon a naqari